arène nationale bu Pikine nekk ci banlieue bu Ndakaaru ah, tey jii combat bi doon dox ci diggante je ak Eumeu Sène ñaari roi des arènes yi naka nga xam ne ah, duel ba doxoon seen diggante 2018 Eumeu Sène rek moo jëloon ndam li ah, taxoon mu nekk roi des arènes laata Modou Lô di ñëw di ko foqati ci moom tey jii combat doxaat na seen euh, diggante nañu ko gisee woon rek ñaari mbër yooyee def seen face à face ku ne rek wax sa morom la nga xam ne moo leen xaar ki nga xam ne nag moom moo nekk ci écurie Tay Shinga nga xam ne nag waxoon na ne sax dina jël revanche am ci kaw Bombardier Bombardier it ne ko nag la amoon dootul amati ndax fu mu ne nii eh, pare a sama supporter yëpp dañ leen jokku ànd ak man eh, jël si ndam li ci ndakaaru bu guddee ñu daal di ñibbi eh, mbuur mu mel ne nag loolee mujjeewul am ndax Eumeu Sène mi nga xam ne daanoon na Bombardier daanaat na ko nu ñu koy waxee 2-0 daal di jël ndam li rek yobu fa nga xam ne moom mooy Pikine ñibbi si fii ci mbaaw nga xam ne nag fa lañ ko fekkoon sax muy defaru rek ngi dem ci stade